atum deux mille vingt deux mille dix neuf bii deux mille vingt et un bii nii est dina nekk atum jàmm wala Covid dix dina jeex ñu dem ci leneen am déet. non deux mille vingt bii. deux mille vingt et un la mais vingt et hmm. dina neex lool. yëpp dina wax léegi alhamdulilah rabbil alamina même Covid dix neuf bi léegi mu dem yoonam. Hmm. man maa la ko wax dag ma woo wax ma ko. ah alhamdulilah. si kàttanu yàlla day dem yoonam bi léegi léegi léegi léegi léegi. deux mille vingt et maa la ko wax. Covid dix neuf dina dem. yépp day dem yoonam bi léegi kay. Hmm, amul ay sarax yu ñuy mën a def. non no non dèjà man lu ma la wax man sarax bu mu war a dem man def na ko ba pare sama bopp. parce que féticheur du mun a taxaw mu ne il faut que nit yi def lii état def lii non xanaa yow du bokkul si su yow du soutien hmm. yow soutien la comme yëpp. balaa nga mën a état. bu yaakaar si état bopp yow jël sa alal nga def ko sarax. loolu moo am solo. yow de yàlla da am nit yi mu ngi laa am yaakaar yow yow ak docteur ñoo bokk ci liggéey. dëgg la merci fertilité day aar dikk. dëgg la voilà c'est très am na solo am na solo waaye nag comme Sénégal nga dëkk léegi. Mhm. ngay malien Sénégal ak Mali ñoo bokk benn dëkk bi. dëgg la ñun ñu am suñu rakk. Mhm. am suñu doom. Mhm. mu nekk jàngkat bu xarañ. mu nekk ñaari yoon. meilleur élève fii ci Sénégal. bind na sax ab téere. muy jànge foofu ci France. Mm-hmm. yàlla def ne dañoo réer boobu ba léegi ñun ñoo ngi koy wër. Mm-hmm. est-ce que mën nañ am yaakaar ci moom walla am na loo xam ci cas bi nga xam ne quand même sonal na nit ñi fu mu toll nii muy jaari sow. bu nga wax yaa wax bi rek su ma yaram dafa daw. ndeysaan parce que yëpp am njaboot. Mm-hmm. ku ne. ak jigéen lu mu sonne si pour jur yi doomam. wallaay ndeysaan jigéen moo tax jigéen moo jur ye waliyu jigéen moo jur président jigéen moo juru ay ku mutu doon borom daraja ku ne jigéen moo la juru góor du la juru de jigéen moo la juru wallaay wallaay dafa am nakar ci xool nga jur doom neuf mois mu ngi sa biir nga jur ko màgge ko nga toppatoo ko ba mu dem ba mu bugg a tekki say say mu ñëw rek disparaît ko kooku hmm. enlever ko kooku moom góor la ku ko jël su ko génnewul nii góor moo ko jël góor moo ko jël su ko génnewul du baas yi moom de maa ngi si kaw moom depuis man départ na Mali ba nii balaa ma jógee Mali ñëw fii Sénégal man def na sama saraka yi ma war a def yëpp pour mu génn jàmm ak salaam. kañ nga jóge Mali. man maa ngi jóge Mali barki dem la jóge Mali ñëw. nga ñëw seet si ñu tey ma ñëw seet si leen tey. yow da nga doon suivre Sénégal Mali. maa la ko wax maa ngi suivre leen Sénégal Mali macha allah. seen actualité yëpp macha allah vraiment. donc moo tax ba ma ko gis seen Sénégal rek su ma daw. ma jóg lu ma war a def ma taxaw si. nouvelle bii nii xaaruma kenn de ma ne ko foog ma xaar njabootam bi wala non non non yaayam bi sunu yaay la. Mhm. donc am na solo ñun war na ko jàppale. si bàttin ak zaari parce que ñu war na ko dimbale ko si suñu xam-xam bu ñuul bi mhm. jàppale ko pour sénégalais yëpp am tranquillité bi si mbiri ndaw si bi. Mhm. parce que su génnewul baaxul de. il mu génn de góor moo ko yor. góor moo ko yor kay mais dina génn. dina génn man li ma gisee si seet. góor moo ko yor mais dina génn feeñ. yàlla na doon dégg dina feeñ dégglu ma la day feeñ. ma la jóge Mali ñëw. ñoo ngi leen di jaajëfal. Eh, loolu su weesee mais malien ceeb. dina neex lool. yëpp dina wax léegi alhamdulilah rabil alamina même Covid bi léegi mu dem yoonam. Hmm. ah mbokk yi ñoo ngi leen di jaajëfal. Eh, loolu su weesee mais hmm. malien ceeb ana musoman bɛɛ lajɛlen fo. malien bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ne Ablaye Djibo ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen depuis Bandaw nag a président Assimi Goïta n b'aw bɛɛ lajɛlen fo. Ani Mouktar Wan premier ministre de Mali n b'u bɛɛ lajɛlen fo président de transition n b'aw bɛɛ lajɛlen fo n b'a Mali ka segin a segin e, a segin cogo la mɔgɔ wɛrɛ Mali dilan dɛ anw maliyɛnw de Mali dilan ne Abdoulaye Djibo ka message de don ka lancer maliyɛn bɛɛ diaspora maliyɛnw minnu bɛ Sénégal minnu bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ Faransi o Amérique maliyɛn bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ne ka message don an maliyɛn bɛɛ ka wuli an Mali dɛmɛ Mali bɛ